ñu ngi yëkkat suñu kàddu ci ndigalu Serigne Touba du mu taxa di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba suñu borom ñaan yàlla suñu borom mu kàttanal ko ba mu àggale mboolem naa yi nga xam ne am na ko ci liggéey Serigne Touba yépp ci ni ko bëggee di leen gat yottali jottali ay nuyoo ak cantam ak i jéeme ko ci bokku jullit yépp ak bokki taalibe murit yépp yëkkati ndigal nag jëmee ko ci sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall mooy sëriñ di mu sëriñ Modou Mbend mi nga xam ne yàlla def na tey moo fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall ñu koy ñaanal moom ak rakkam yépp ak ñu topp ci ginnaaw yépp kàttan ak wér ba mën a liggéey sëriñ Touba ndax ñoom seen kàddu yépp li ñuy ñaan mooy yàlla na jekku ndigal kon loolu mooy foo leen fekk rek jekk nañ Cheikh mu Mountakha yónni ma ci moom ndigal ndigal li nag weesuwut barab bi ñu tuddee gaar bu mag te yaakaar naa diggante daaw ba na ñëpp nga dégg la fay xew ci loo xam ne dëppwut ak ni dëkk bi war a mel sëriñ bi nag jox ndigal sëriñ am di jox ko ndigal ne bu àjjuma ak jàmm ñu dem fa buñ demee xool la nga xam ne moo indi jafe-jafe ba lépp ñu dindi ko ba am set wicc di tax mu taamu ko ci nag bari na ndax wóor na ku ne ndigal bu jógee ci kër Sëriñ Tuubaa dem ci kër maam Cheikh Ibra Fall samaan wa taxatan rek la fay fekk ndax ñoom amuñu tànn amuñu lu leen gënal lu weesu lu lu gënal sëñ bi ba ma ci yónnee itam loolu sëñ am di wax dara ma ndigal lu jógee ci kër Sëriñ Tuubaa jëm ci kër Cheikh Ibrahima jëfe la képp lay am ne ko suñ bëggee ni lay am kon suñ saaliw yow mi nga xam ne yaa ak sa rakk yëpp ak sa doom yëpp ak taalibe yi yéen fi teewal sëñ bi sëñ bi yabal leen ngir ma jotle kàddu yi ba ñëpp xam ne ndigal la lu bàyyi ko sëriñ bi kon loolu na ko ñëpp bàyyi xel xam ne ajjuma jàmm la yéen la ko sant ngir ñëpp ànd ko yéen waaye xam na ne bu ngeen jiitoo rek lépp na mu bëgg dana ko ne amee kon nag mi ngi leen ci ñaanal la seen maam ji jaayante woon ak Serigne Touba yàlla ne ko ci Serigne Touba defal ndax xam ngeen ne kat dëkk bii di Touba ak fu Serigne bi sa sañ fu ne xam ngeen ne lii tey ñuy def seen maam moo ko fi jëkke mooy bu kër Serigne Touba moo ko fi jëkke ma sama dégg ci Serigne Souhaïbou bu mu wax ne. mas naa romb ci biir kees sëñ bi gis ki ñuy wax sëñ Bànda Sow bokk na ci ñi daa root ndaa yi ak di buub kër gi nee na bi Ibrahima ci ko xamoon lii ci buub ëttu sëñ bi kon nag lii leen sëñ bi defaat ci biir loolu rek la tàbbi xam ngeen ne at mu jot tam bu màggal Tuubaa gi di jub si ak bu jàllee ndigal li lépp ci seen loxo la koy tegaat waaye saa su ci tegee dana dangeen ko def ni mu ko bëggee kon nag mi ngi leen ci ñaanal la Serigne Touba waxoon ne xam ngeen nu may xamee ne li ma leen sant def ngeen ko wala dee ñu ne ko dee mbàkke mu ne waxtu ma sante nit lëf day am lu jug ànd ak moom bu jigéen digale nag mu dëkk ak moom bu jëfee digale nag day dellu si waat ci man dima xamal ne dem naa waaye mu foo ne yéen nag wóor na kon loolu dee dara mu ko kon la chef daal waxoon ne ñaari kër yi dafa am mbañ mooy kër Sëriñ Tuubaa ak kër Cheikh Ibra nee na kër Sëriñ Tuubaa mbañam mooy ñàkk joxe digal kër Cheikh Ibra mbañam it ñàkk jëfe digal kon nag yaar yëpp daje na kon nag yàlla nañ ci dajeeg tawféex te xam ne itam nag Sëriñ bi muy sañc dëkk bi daa fekk fu dara nekkut mu sanc ko waxoon ne itam yaa rekk a tax ma sanc ko mooy daw nit ñi ak daw li nekkul ci daw li nekk ci loxo nit ñi waxit na dëkk bi itam ku fi sam xel indiwu sam xel dina defendi kon nag loola moo màgg tey ba dëkk bi agsi fii mu agsi waaye xam ngeen ne tawféexu suñ borom am na ci bu baax ndax dëkk bi nu rëy nekkatul ab dëkk am réew la bu fekkoon beneen dëkk bu mu doon saa soo xëyee da dégg mbooloo mu faatu kon nag loolu ñaaru Sëriñ Tuubaa mooy li nga xam ne moo ko gàttalu moo ñu gunge waaye li ci suñu war suñu waru gar nag faaw ñu di ko def moo tax Cheikh Modou Mountakha wax ne li ko fi bàyyi mooy wattu ak sàmm li muy wattu ak di ko sàmm nag mooy taalibe Sëriñ Tuubaa ak dëkku Serigne Touba bi ndax Serigne Touba loolu képp doon ak bëggam kon nag lépp loo xam ne gis na ne nekk na fi te wóoru fee nekk fas yéene loolu lépp mu jóge fi comme dama ko waxe woon fii yéen nag sëriñ bi nee na ngeen xam ne liggéey bu door a tàmbali la waaye am na yeneen liggéey yu ne toll yu ko ëpp ci biir dëkk yoo xam ne seen loxo la ko fa seen teg bokk na ci cornice bi ñi fi tabaxi place ñëpp nañ xam ne fu ñu war a jóge la ndax ab cornice du fu ñu war a dëkk ndax sëñ bi dafa natt ay pàkk ay junni junni junni junni pàkk te amu ci benn pàkk boo xam ne dañ koy jaay ku accès dañ la ko jox ngir jëm sëñ Tuubaa koo ko jaay daal mooy ki nga xam ne dañ laa mooy pàkk nga kon nag corniche du fu ñu war a dëkk te xam ngeen ne mi ngi màgg te la tax kilifa yi fi jëkk yi fi yi fi newoon tàmbalee ko ci Cheikh Mamadou Fadil mi nga xam ne moo ko jëkkoon a natt ku gis mbedd yi ni mu ko yaatalee nga xam ne xamoon na fi dëkk bi jëm si saa vingt bi nga xam ne Serigne Saliou moo ko fi defoon itam xam ngeen ne ñu bari nga fay dëkk foofee ci li ñu war a sekkar ci la loolu nag sëñ Abdou bi nga xam ne moo jiite commune bi mi ngi koy saytu ngir xool yi nga xam ne jaaduwut te ndefa yëpp bu noppee ba liggéey bi jeex jàmm sëriñ bi dana ma yónniwaat ci sëriñ bi ma jot lu ko ndigal la ci topp ndax sëriñ bi nee na bëgg na daal bu soñoon dëkk bi xar kanam bi dëppook dëkk ko si dëkku sëriñ Tuubaa waaye nag fu neex waay dëkk fu neex waay teg dëgg la nag dëkk bi de dëkku yërmande yërmande ji moo tax mu agsi yi waaye lu yërmande ji bari bari nag nit ñi kenn wërta xool sa njëriñu bopp bay loolu ñëpp te am na ci bu fa àggee foofu lay àgg dana mujj ñu sàkk mbedd yi kenn du amatu fa jaar léeg-léeg nga jëm ci barab bu gàtt boo xam ne yoonoo dana xat-xatin woo xam ne ndax njaay yee nañ koy tegale ku fa jaar nga xam ne lii kat du lu jëm kër kon loolu lépp itam lu ci war a tege na loo xam ne sëriñ bi ci seen loxo la ko fas yéene teg ngir ngeen sàmmal ko ko ci dëkk bi ngir wóor na ko ne bu ko tegoo tegee ci seen loxo rek na ngeen ko na ko bëgg da da ko dana ko ne amee kon nag ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm ndax yéen xam na ne fu ngeen toog rek xaar ndigalu Sëriñ Tuubaa moo leen fi bàyyi kon incha allah bu dugg li jàllee jàmm yeneen yi ci war a topp yëpp dana ñëw leeral leen ko bu ko defee ba dëkk bi setaat delluwaat ca ne ko borom bëgge ndax xam ngeen ne kat bari na lu fi naqari sëriñ bi li ko fi naqari la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek amu ci lenn loo xam ne moom moo ko tere lu suñ boroom tere la rasulullahi digle ko Sëriñ Tuubaa ñëw yeesalaat ko moom mu ñëw di ko fàttali kon nag loola xam ne nañ xam ne dëkk bi dëkkub lislaam la dëkkub Sëriñ Tuubaa la nag am na waruma yoo xam ne noonu la ko ñëpp war a maase jox ko war ma jox loolee nag Sëriñ Tuubaa dafa wax ne biix di yaari bi la bu soñoon njaboot gépp dañuy gindiku te kenn du leen dóor yar ndax Sëriñ Tuubaa moo ko bëggee noonu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon naa ko fi bu yogg daa waxoon nit ne ko xaadal waraa noo koy bil adabi noo koy firé mu ne ko xaada mën na alwara mbindee bil adabi ci teggeel mu ne ko bil adabi ca nañ ma ne moo sëriñ bu soñoon du xo waaye nit ñi itam nag nañ xam ne lu yàlla tere rasulullah tere ko Sëriñ Tuubaa tere ko loolu képp koo def itam lor képp nga ci jële te bu soyoon kenn du loru kon nag xam na ne fee marché ba xew ñàkk sécurité ga bari na te ñàkk sécurité kat fu mu tàbbi nit du ta tere jaamu yàlla moo tax suñu borom di wax ci alxuraan ne falyabudu rabba haazal bayti allazi at'amahum min juu'in wa aamanahum min xawfin ngeen xam ne ki nekk ci njàqare ki nekk ci njàqare du du am teewlu mën a jaamu yàlla moo tax ngeen tudd li ñu tuddee salaatul xaw fi sax ngeen di ko gis kon sécurité mooy la war a jiitu fem mooy la war a jiitu fem am na loo xam ne itam sëriñ bi fàttali woon na ko fi sëñ Abdou Lahad xam naa na nga ko topp xool ko yëpp loo ci gisate nga ànd ko kilifa yi nga xam ne ñoom ko sëñ bi teg seen loxo mooy ñi ñi yar xaj yi ci biir kër yi am na ñu dem ba àgg ci wax ne dañuy dajale ay xar sax di leen sànni ci mbedd mi ñu daw te xam ngeen loolu du aada ju rafet dëppoot ak diine dëppoot ak dëkk bi loolu lépp nag sëriñ bi wax na ne la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ne sama bakkan la ci teg ñaar mooy itam fas yéene fas na yéene ñeen xam ne ndigal li mu joxe de ñii mu ko teg seen bakkan wóor na ko ne seen bakkan la ci teg kon mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah